pour situation bi bi bi bi réew mi dund jamono arrestation yi parce que yaa ngi naan Pape Abdoulaye Touré mais il n'est pas le seul parce que am na ñoo xamante ne jamono ji ñoom ñëpp ñu ngi wër di arrêté ñi ñii di jàpp ñenn ñi mm-hmm. euh, euh, da ngay ñaanal njëkk Pape Abdoulaye Touré hmm? euh, ak ban taxawaay la ci famille bi taxaw jamono ji waaw dama koy ñaanal njëkk mm-hmm. am na am na solo si kaw tamit booy ñaanal nit njëkk ki nga koy ñaanloo mu am dégg-dégg boo xam ne nii dina leen mën a entendre mm-hmm. depuis quand la gars yi di commencé di génn sur les média di ñaan. Mm-hmm. ñenn ñi sax dañuy ñaan ba jooy. absolument fan la mujj fenn. Mm-hmm. kon man damay jéem a taxaw si fenn mooy que ni tollatul ma sax foo xam ne nii damay ñaan ñekk ndax ku may ñaan kooku noonu xamul jéggale. Mm-hmm. mais damay wax si benn côté mooy. ah bon kooku xamul jéggale. voilà xamul jéggale Macky Sall xamul jéggale. moom lenn la xam mooy euh, xam nga nit boo ñëwee fekk kenn di dóor kenn. da nga naan kuy dóor bàyyi bàyyil dóoraate bi. mais waroo jël koo xam ne ni moom la ñuy dóor ba muy jooy. Mhm. nga ne da nga koy nax muñal. Mhm. te Sénégal foofu lañ toll quoi gars yi dañuy jël benn affaire di ko raay raayal. Mhm. ba mu jëlal nu benn affaire boo xam ne affaire bu catastrophe la su suñu vie. absolument loolu kese nag moo moo moo mën naa ne moo indi désordre si biir réew mi. kon yéen moo indi gandi désordre si biir réew. man dam euh, fu may waxee mooy. Pape Abdoulaye Touré ak ñeneen ñeneen mooy détenu politique yi. Mhm. injustice lañ leen def. te koo xam ne nii da dañoo def si moom injustice ñoo koy leen nekk kook dañ ko war a bàyyi immédiatement mu suivi ay procès. Mhm. ndax dañ ko tooñ koo xam ne dañ ko tooñ lu ma fi wax confirmé yëpp. leer na ne ne wax dëgg neex suñu borom wa taala Pape Abdoulaye Touré koo xam ne nii dañ ko torturer la ba pare salfaañe ak ak yelleefam ba pare. ba bavouer ay ay droit wam ba pare euh, ensuite mu nekk si ay circonstances yoo xam ne yu grave la ba pare lu si gën a doy waar mooy comment fait-il que nit nga toroxal ko ba mu totooral tooñ ko toj bëtam damm ay loxom damm ay cëram photo ko ko partagé ko sur les réseaux sociaux mm-hmm. ba pare ensuite nga yóbbu ko prison ma mm-hmm. dama naan dama naan lii sax lii lan la war a mën a nekkee quoi en fait mm-hmm. wax dëgg neex yàlla lii nii yëpp nga def ko doomu aadama bi ba pare jël ko yóbbu ko prison. ba pare ay avocat am di di dugal ay demande de liberté euh, provisoire ngeen naan koy lànkal. Hmm. mel ni ni kooku Pape Abdoulaye Touré du nitu malfaiteur. gi nga euh, détenu politique yi dama hmm. ko yàgg di wax sur les médias ak sur les télévisions lu nu mën a opportel population bi. Hmm. gouvernement wu Macky Sall mënu ko opport euh, mënu ko jox population bi. ah bon non on se dit la vérité ndax xam nga gi nga euh, masse problème mu réew mi dafa bëri de. Mhm. problème Sénégal. problème mu réew mi mhm. dafa bëri. Mhm. xam nga ñu ngi daan si wàllum inondation yi sept cent cinquante milliards yoo xam ne dañ ko si dugal si biir mbënd fan la mujj fenn licence de pêche yoo xam ne nii moom lañ jox ay étranger ba lébu yi euh, ñenn ñi di jël gaalu loo cay di si géej gi yooyu noonu yëpp ay ay débat yoo xam ne nii gaa yi si war a mën a gën a taxaw di résoudre moo gën moo gën ñu fekk benn opposition bu mel ni comme Ousmane Sonko. Ousmane Sonko nag lu mu nekk yàlla moo ko ko def. absolument ndax euh, je me souviens tellement jamono ji mi ngi ci situation yi voilà yu doy waar man mm-hmm. je me souviens tellement ce jour ay Aïdara bu Sen TV. di ko doon dénoncé di naan Macky de mooy def Ousmane Sonko lu mu war a nekk. Mm-hmm. ndax xam nga lu tax loolu ma résoudre ci côté boobu mooy que ni comment fait-il que yow yow yaa ngi am ay problèmes yu ne ngàññi sa kanam. Mm-hmm. nga topp benn opposition. ana Ousmane Sonko fan la nekk anam lan lay def nga koy topp en merveille ba pare xam nga ba ba pare population bi tamit ni ñu koy toppee noonu population bi di ko gën a bëgg mhm. mais noonu moo tax ma ne Ousmane Sonko dafa nekk nit koo xam ne gouvernement bi je lance un appel fort mhm. nañ ko gën a protéger ndax mooy espoiru jeunesse bi mhm. wax dëgg neex yàlla ndax ñun genes bi yëpp bu ñu demee ba wékk si moom te Ousmane Sonko yorul dara yaa xayti mhm. yorul dara mais jeunesse bi ñoo ko bëggal seen bopp ndax ay conviction yoo xam ne nii moom lay véruler ba mhm. jeunesse di si gis seen bopp mhm. mais kooku noonu duñ ko waroon mën a Pape Abdoulaye Touré gëmoon ko gëm voilà voilà ba pare d'ailleurs tamit si pap Abdoulaye Touré te tamit bu nu mës a fàtte ne Pape Abdoulaye Touré étudiant la droit lay def biir université Cheikh Anta Diop de Dakar day suivi droit voilà da d'accord nañ ko mais tamit si côté boobu <coughs> ndax ñoom avocat bu mu ko gisee bu ñuy soog a raconté dafa ne ma Pape Abdoulaye Touré lenn luñ ko bëggoon ñëkk a ji mm-hmm. mooy lan dafa volonté woon ànd ak jeunes yi taal biir université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu dem ba xam ne ne Pape Abdoulaye Touré il est sanctionné à cinq ans mm-hmm. biir université ñu xam ne boobu du dox ñu ne Pape Abdoulaye Touré dafa volonté woon pour dem taali kër responsable muy Pape Malick Ndour <laughs> voilà voilà yaa ngi soog ñëw ci débat bi voilà parce que aussi euh, li ñuy wax moom leer na ñaar ñi dégg nañ ko ñu ne Pape Abdoulaye Touré dafa bokkoon ci ñoo xamante ne mm. euh, ci ñoom information yu joxe ñoom mm. que dafa jugoon pour dem taal kër jàmm kër jàmm loolu la ministre bi loolu la ministre bi génn wax à TFM muy ministre de l' intérieur mm. Antoine Diome moom la jot a génn ndax ñun ñëpp euh, monde entier gars yëpp ñu ngi ko doon suivi journaliste bu jigéen bi laaj ko ne ko mbiru Pape Abdoulaye Touré ñun ñëpp jot nañ photo sur les réseaux sociaux ñu ko gars yi torturé salfaañi ak ak yelleefam tasaare ko ba ñun ñëpp jot si loolu si mën a indi confirmé mu ne mbiru Pape Abdoulaye Touré damay ñëw mais moom wax dëgg neex yàlla mi ngi am jàmm mi ngi am jàmm léegi nag suñu médecin yi ñoo ko bëggoon seetu mu ne non man ge des médecins personnels ñoo may suivi ñu xam ne loolu ak ak ak yelleefam la ñu nangul ko ko mais si côté boobu damay dama fay taxaw mooy si ak ak yelleef boobu ministre bi wax Antoine Diome ma mm-hmm. delloo ko ko mm-hmm. ma delloo ko message bi mooy que ni mbiru Pape Abdoulaye Touré bu nekkoon duñu doon euh, sàmm ak ak yelleefam kenn du ko torturer mm-hmm. ba mu si jële ay fracture ouverte ok ba mu si jële ay bët bu neew ay bopp bu toj ñoom bi ñuy wax ba finalement dañuy mujjee di rectifier waat seen euh, seen bopp si biir seen communication pour wan na ne Pape Abdoulaye Touré ñëpp ko xam nañ ne injustice lañ teg ci kawam ba monde entier bi yëpp xam ko. mais léegi léegi euh, xam nañ ne injustice lañ teg ci moom léegi kay. moom nañ ko bàyyi mu ñibbi si ay njabootam. mais mais mais fen jamono ji ah. Hmm. Euh, Pape Laye Touré yan condition la nekk aussi parce que aussi jamono yi ñu wax ak yow nii. Hmm. ba léegi je pense que mi ngi mi ngi pavillon spécial. Hmm. yan condition la fa nekkee. non condition yu mu fa nekkee nag. mën nañ ne condition yu grave la mhm. ndax bu nekkee say membre de famille pour ñu gis la rek problème la mhm. man grave laa koy gisee ok waaw am amoon accès ci moom voilà gars yi amuñu accès boo xam ne nii si Pape Abdoulaye Touré la carrément ah bon famille ñu ngi yéen a koy gis euh, euh, non gars ñu ngi koy gis mais ñu ngi ko war a gisee giseewuñu ko ko mhm. ndax mën na fa dem tey ñu renvoyé la nee na non tey doo ko mën a gis joxaat la beneen jour boo xam ne ni boo ñëwaatee sax da ngay euh, euh, mën nañ la sax renvoyer war mm-hmm. mais même ay avocat am sax parfois pour ñu gis ko problème la pour wan na ne ne wax dëgg neex yàlla euh, réew mi fu mu toll ku ku artuwul di nga arte mm-hmm. mais léegi solution bi ci ñan la ñenn ñaan kilifa diine ñoo war a wax ñenn société civile Hmm, parce que jamono ji Sénégal tekk tekkaar la def tek la def. voilà tekk la def parce que aussi loolu nga baal ma ci tuuti. Hmm. Euh, dañu gis ne. jamono ji hmm. tekk tekkaar la def Ousmane Sonko jàpp nañu ko. tekk. ñëwoon dëkk bi day tàkk. mais situation bi ngi ne tekk. Euh, ñeneen pour ay yeneen détenu yi jàpp nañu leen. ba léegi mais dafa mel ne situation bi euh, nit ñi dañ toog rek doog toog toog toog toog. di seetaan quoi interpeller aussi kilifa diine est-ce que kilifa diine aussi dañ am ci dañ ci am part. waaw kilifa diine yi nag am nañ si part de responsabilité. ndax ñoom bu naan jiite mbooloo tamit ñoom dañuy jiite mbooloo dañuy jiite seen i njaboot ak ñoo xam ne du seen njaboot. Mhm. kaaral bi nag man boog bokk na si loo xam ne nii man déranger na ma ndax am na ñoo xam ne nii bu ñu waxee rek. wax dëgg neex yàlla ñu ngi wax ci suuf dëgg non non non mais wax ci suuf boobu mais kon nag problème bi fan la war a mën a nekk comme te ñoom ñu ngi wax si suuf kon kay solution war na mën a am man boobu lu ma ko gisee. Mhm. li ma ko jàngatee est-ce que dëggal lañ leen est-ce que nangu lañ leen li ñu li waaw ñoom kilifa diine yi waaw ndax moom wax dëgg neex yàlla waaye jun ko sekkal sunu papa la wax dëgg yàlla jox nañ ko respect bu war mais dafa dëggër bopp. Mm-hmm. wax dëgg neex suñu borom wataal la. ndax nit nit ko nit la koo xam ne nii ku ko ñaan si njëkk du la ko defal. Mm-hmm. te loolu dafa am solo si koo xam ne da jiite. ok. da see am solo lool di di baale di muñal di yërëm. di jéggale di jéggale aussi. Mm-hmm. te loolu ñun di nga ko manqué quoi ñun ñun ñun jeunesse bi. Mm-hmm. ñun jeunesse bi di nga ko manqué. boo gisee lu tax gars yi di xatraay di dee si géej di dee si désert yi. loolu mm-hmm. kese la amatuñu espoir seen biir réew. amatuñu fi yaakaar. ok amatuñu fi yaakaar même dama euh, benn démb rek maa ngi siy raconté sama benn frère ndeysaan mu a ma frère ma ne ko waaw ma ne ko non nañ toog muñ liggéey fii si réew mi. jéem fee jëriñoo mu ne dans telle condition. Mhm, absolument amatuñu benn espoir ndax ndax wax dëgg neex yàlla. Mhm. loo loo mënti yore tamit léegi nga koy yore mu jeexaat léegi. lépp lépp lépp cher quoi lépp cher vie bi dafa cher lépp cher mais tamit encore une fois ma lancé appel fort sur le président de la république mhm. monsieur Macky Sall. àdduna du fayantoo. te boo jiitee réew da ngay jéggale. ok njiit day jéggale. njiit day jéggale. Mhm. mais ak lu ñuy gis ci homme politique yi au Sénégal surtout ma opposition moom dafa mel ni moom amul fi bàjjal. Mhm. ci biir réew mi. <laughs> doy na waar. non pose la question quoi man dafa mel ni euh, opposition amul fi doomu bàjjal ñoom daal chaque fois. bu ñu nee Ousmane Sonko ñu ne non nitu firnde la et nii ak nii day bañ a mais Ousmane Sonko chaque jour saa suy saa si ay raison la koy teg mais euh, war nga ko mën a seet kan moo si am nit bu tollook moom mm-hmm. amul amul absolument c'est le chef de la waaye